ñu nuyu mbekk internet Fekke TV ak Bantamba TV yi nga xamante ne ñoo ñuy suivre di leen safoo di leen namoo di leen tiitoo ñu ñëwaat ak yéen toogaat ak yéen fii comme ni ñu leen koy defalee à chaque fois ak ndaanaan yi nga xamante ni ñoo war làmb tey nag ñu toog ak ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté muy Baye Balla Mbuub borom Bantamba TV di suñu jëwriñ di suñu kilifa ci li nga xamante ne nii mooy journaliste tey ñu bëgg a waxtaan ak moom ci yu bari leeral ak moom yu bari ci làmb ak fi nga xam ne la làmb toll actuellement. Baye um, yàlla nangu ziar soxna si maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah di am uh, mbégte ak contentement bu mag tey teew bi ngeen teew fii ci suma biir kër fekk si fii ci suma dëkkuwaay fii ci biir ginnaaw raay ah maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet di nuyu Bantamba TV di nuyu Fekke TV ah di nuyu waa ginnaaw raay gépp nga xamante ni fii laa yeewoo. ah di nuyu le premier magistrat la commune de Guinaw Rail Sud ak le premier magistrat commune de Guinaw Rail ñu ngi leen di nuyu di nuyu yi ci dëkk bi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi di ndokkeel ñëpp ci weeru gàmm gi ñu nekk di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni dara ko yal yàlla suñu borom def jàmm ci biir réew mi ci barkantu yàlla Muhammad ñu ngi lay fay bu baax baal bay baal la tey ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy Gambia bi coproduction Luc Nicolaï ak euh, Baye Ndiaye defoon fa signature contrat Ama Baldé Modou Lo ak euh, mbër yu bare bare ñu gis ne teewoo fa waaw bon dëgg la teew ma fa mais nag euh, mel na ni teew naa fa parce que li fa xewoon lépp wax dëgg yàlla ah, gis nañ ko à travers les les internet ah, gis nañ ko à travers les télévisions ah allah oui ñàkk faa dem nag moom wax dëgg yàlla loolu xëy na loolu la suñu borom dogal mais bu ñu sañoon dañuy teew foofu noonu lu nu fa war ci wàllu liggéey pour parce que ña fa teew ñëpp pour chercher de l'information la pour jox ko askan wi moo leen fa yóbbu tey bu ñu sañoon ñun dañuy teew foofu noonu def liggéey bu mucc ay jox ko askan wi xam nga comprend nga mais ñu ngi nuy waa Gambien yëpp di nuy waa pipeline pipeline ah ah bu ñu ko waxee suñu xel dem ci suñu yaay Abi Ndiaye ah. ah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Sénégal bi bu baax a baax di nuyu Gambien yëpp ñu ngi leen di nuyu loolu loolu loolu mbégte la ah di félicité bu baax comme ni ma koy faral di waxee rek Albourakh Events di félicité Luc Nicolaï Enko parce que ñoom ñaar ku ci nekk li nga war a def def nga ko donc mbër yi ñoom ñoo ci des ñoom ñoo war a ñëw remplir seen i contrat comprendre mbër mi nag boo ko tuddee sa xel dem ci li nekk ci ginnaaw parce que ñaari mbër yi nga xamante ni ñoo war a bëre ñaari mbër yooyu yëpp dañoo am background maanaam dañu am ginnaaw seen ginnaaw dafa bari doole dafa dem ba ñoom seen ginnaaw sax ñoom dal na ëpp doole parce que mënuñu ko maîtriser li nekk seen ginnaaw Ama balde mënul maîtriser li nekk ci ginnaawam yëpp Modou loo mënul maîtriser li nekk ci ginnaawam yëpp parce que accompagnant dafa am solo xam nga ce qui est important léegi réglement bi li mu wax sax pour bañ yenn yenn bagages yi di am ci làmb wala di am ci yenn signature yi parce que des fois yàgg nga gis signature boo xamante ni dañuy dem ba ci biir ñu ne signature bi mënatul nekk lan moo ko indi parce que des fois violence bi fay am. voilà mooy li nga xamante ni moo fa am si diggante Modou Lo ak Ama Balde comme seen euh, violence bi nga xamante ni gars yi naan pompe à gaz ak ñi noo gisee violence. waaw non mais man moom wax dëgg yàlla mënumaa wax ci pompe gaz comme man teew mu woon comprendre nga mais booy li ma jot a dégg boog <coughs> ci yenn information yi <coughs> ngeen baal ma mooy Ama Baldé am na lu ma bëggoon a sotti Modou Lo loolu moo indi problème yi loolu laa jot a dégg loolu moom moo indi benn yenn problème bi te pourtant man pour ma man loolu pour man warul indi problème li tax warul indi problème mooy mbër moom saa buñ la joxee avance lépp luñ la dégal wala loolu sam maaraa digal pour nga am ndam di ko def comprendre nga mais ñëwaguma ci loolu ci li mu bëgg a wax mooy réglement bi li mu wax li mu wax boobu mooy signature contrat saa bu amee mooy mbër mi ak manager rek ñoom ñoo war a teew. accompagnant yi boo xoolee signature yi fi mujjee am yëpp accompagnant yi bu ñu ñëwee ci ginnaaw ci ci biti la ñuy nekk mbër mi ak ménager bi rek mooy yéeg parce que loolu règlement doo wax parce que li tax ñu koy def mooy dañuy éviter yenn violence yi nga xamante ne moom mooy am ci làmb comprendre nga accompagnant mbër bi nag moom accompagnant mbër mi la kooku mënaloo ko dara saa bu ñëwee comprendre nga lépp loo xamante ni maanaam bu ko defee leer na ko ni luy dalal xelu mbër mi la moom da koy def xam nga pour man ay mbër mi dafa bëggoon sotti lii mbër mi bëgg a sotti mbër mi pour man loolu warul yàq làmb parce que loolu yàq yàgg na ci làmb làmb ak làmb coow la baaxoo gis nga Ama Baldé lépp lu mu mën a def ci mistik pour daan Modou Lo dana ko def Modou lépp lu mu mën a def ci mystique pour daan Ama Baldé dina ko def parce que làmb jooju moo tollu noonu bis bi moo toll noonu ñaari mbër yi ñoom ñoo tollu noonu et pourtant gis nga Modou Lo tàkkusaan bu ne bëri na ko Ama Baldé tàkkusaan bu ne bëri na ko mais dafa mel ne dañuy doog bëri ñoom ñaar combat bu mag parce que xam nga lu ko waral dëkkante bi yàgg na combat bi yàgg na ñoom ñaar amul lu ñu waxantewul ci ci ci làmb ngir daje tey làmb boole leen ñoom ñaar ku ci ne danga xiif sa moroom comprendre nga muy làmb joo xamante ni nag. làmb la joo xamante ni am na fu bari fu mu mën a yóbbu làmb waaw ndax bés bu mag la du bés bu ndaw Ama Baldé du Lo booy imaginer Ama Baldé gis nga làmb jooju yàlla na ci jàmm rek di xew parce que combat boobu du komba boo xamante ni waaw combat maanaam du du combat du banditisme moo koy daan moo koy gañee xam nga li ma la du banditisme moo koy gañe du wax ju bari moo koy gañe mais expérience mooy gagné combat boobu comprendre nga combat d'idée la combat d'idée naka la ñu war a mën a toogee ñu waxtaan suñu biir ñun bu ñu bëggee daan Modou Lô wala ñun bu ñu bëggee daan Ama Baldé naka lañ war a def ngir am ndam ci bis bi parce que bés bii waruñu ko ñàkk parce que bés boobu bés boobu non bés boobu booy après réew mi dañ koy waxtaanee. xam nga avant xam nga bis boobu jaay na boppam ba pare Modou ak Ama Baldé ñoom ñoo war a bëri le 5 novembre fii ci biir arène nationale non mais makan loolu beneen affaire la comprendre nga loolu ñaari mbëri ñaari xale yi ñoom ñoo jaay seen bopp ñoo jaay seen combat. non lan mooy Ama Baldé état bi moo xam nga xam nga tamit xam nga mooy li ma la wax rek xam nga làmb bu amee <clears throat> làmb bu amee ku nekk da ngay génn wax sa xalaat. ku ci ne sa xalaat makan ak xalaatam bamba ak xalaatam man ak sama xalaat ku ci ne xalaatam bul ko ko bañal nangul ko rek la mu wax comprendre nga la ca baax nga jël ko gis nga critique lu baax la am na solo de critique dafa baax nit critiqué la nga xool li mu la critiqué lan la nga xool la ca baax nga jël ko man ci sama gis-gis quoi laay wax comprendre nga mais man diggante Ama Modou loo du ma ne la ki a man du ma ne la kii a ëpp doole du ma ne la kii mooy daan du ma ko def ba le jour du combat. wala kii wa jekku non non non non ko def ayu ah, tamit làmb bul buy tourner la may booy xanaa xamuloo ni làmb mbër gañe na ko téye ku nii ci loxoom ba le jour du combat tàkkusaan arbitre génn seen diggante ñu ëlbati làmb ji xamoo loolu ah moo tax duma debaa ci loolu dama ne la làmb jooju làmb expérience la gis nga Ama Baldé bu ànd ki borom mi bopp wala Modou Lo ànd ak i boroomu bopp ku la ci ëpp expérience ci combat boobu moo la gën a jege victoire bi. Euh, waa expérience laa la wax moo koy gañe mais nekkul ni ay wax ju bari ji de ku ne di wax sa bopp moroom lu ñaaw wala ñii di génn fii di xuloo ga jaru ko déedéet parce que xam nga lan la li cool yi bari bari bari bari waxkat yi kenn mënu leen a teree wax de gars yi experts yi lamb dafa bari ay experts. làmb dafa bari ñoo xamante ni dañoo yàgg a wax ci làmb di gis làmb nii am nañu ko yàlla may di ko gis nii. waaw xam nga ma benn hygiène de vie da ci bokk ñaareel bi mooy entraîner physiquement parce que boo xoolee ñaari mbër yi li tax ñoom ñaar ndax neexuñoo natt ci combat bi laa lay wax ñoom ñaar dañoo toog ko ci nekk pendant des années bëriwuloo comprendre nga ku ci nekk nëbbatu di liggéey sa liggéey liggéey bu ñu ci ëpp dañuy nëbbatu gisoo leen des fois Modou boo ko gisee fee nga koy gis Cambérène ñu won la ko mu toog liggéey des fois nga fekk amaa Baldé Sall mu liggéey comprendre nga mais duñ la wan ñaari mbër yi ñu wan leen saal bi ñuy contacté ñu contact wala des fois mut lu ñu wan la ko contact fële xam nga li ma la te day similaire rek xam nga similaire bi boo ko déggee mooy maanaam gars yi noonu lañ mën a jëlee image bi quoi mais ñoom ñaar li ñu toog ñoom ñaar la ma la bëgg a wax li ñu toog ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk pendant des années bëriwuloo yaa ngi toog ci sëri ruq di liggéeyi mais la problème à ci arène nationale la ñu war a bëri te ñoom ñaar arène nationale amul kenn ku ci bëri ñoom ñaar ba kenn mësu see bëre ñoom ñaar arène nationale bi mu ibbee ba léegi amul kenn ku ci mës a bëre te arène bi fii ku ne xam na ni gannus gi dafa metti boo taxawul physiquement bu combat yàggee oh bu combat yàggee nga jommi bu combat yàggee laa la nga war a bëri combat boo xamante ne à la looloo garaaw combat jàppante rek de bu combat bi yàggee bu combat bi yàggee ku ku ci ku ci ëpp doole ëpp ci physique wuy ma ku ci ëpp doole ëpp ci physique ëpp ci physique laa wax de taxaw physiquement contact ba os gën a baax xol non yaa moom combat bi combat bu yàggee baaxul ci koo xamante ni saabu bu lewtoo ñaari yoon à part déedéet waaye nag li ma ci jaaxal mooy Ama Baldé mësta bëri combat bu yàgg combat bu yàgg ah xanaa moom ak guy gi ah combat bu yàgg ah moom ak Malick ñaa mais Ama balde saabu bu arbitre sifflé day dox sa kaw waaye Ama ci kaw kan ngay dox Modou xarañ loo Modou Lo bul fàtte xanaa da nga fàtte bésam ba ak Gris Bordeaux ah ndaanaan yi la bëril bés dootu ko jaaxal te combat bi mën naa la wax ne mën naa la wax ne l'expérience face à la la dëgg la ñoom ñaar ñoo bokk génération mais Modou Lo moo ko jiitu ci làmb da koo mag ci làmb Modou Lo 2005 2006 la ñëw Ama Baldé boo xoolee 2009 la dugg ci làmb nga ne xalaat naa ci dóor non combat boobu dóor mu daanu non combat boobu yaakaaruma ci dóor mu daanu dóor mu daanu non boobu bamba ñaari ndaanaan ay bëri waaw ñaar ñoo xamante ni kenn mësu ci yàq làmb xanaa xama Modou Lo du yàq làmb Ama Baldé du yàq làmb seen adversaire rek moo leen ñor. waaw man nag xam nga man moom man man man man ah favori man de franchement man favori favori favori combat Modou Lô ak Ama Baldé favori bu bu favori am danga koy Modou jox favori moom yor couronne moo yor couronne bi favori favori favori man daal man xam nga man làmb dama doon wax naan damay faral di wax ne làmb man yàgg naa wax ne làmb dootul ay rêve ay réalité la man favori mënu ma ko mësuma ko gën ci làmb xam nga ku ma gëm ku gën a liggéey ku ëpp doole ku gën a oos ku ëpp compétition man kii laa gëm boo ñëwee wane sa bopp loolu laa mës a gëm ndax mbër yàgg nañ koo jox favori mu ñëw ñu tër ko xam nga loolu waaw liñ fi tër ci ay mbër yoo xamante ni dañ leen a jox favori dafa bari waaw moo tax man waaw dinaa jox nag Modou Lo favori bi parce que moo yor couronne bi. mais mais ñu ci bi. Mhm. attaque bi Ama Baldé la arrangé xeex bi Modou loo la arrangé ñoom ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk xeex arrangé na la attaqué arrangé na la bëri na bëri arrangé na la Modou loo mën naa xeex Ama Baldé mën naa xeex mut loo mën naa bëri Ama Baldé mën naa bëri ñu bañ a naxante quoi il faut ñu xool ñaari booy yi nga xamante ni ñoo daje ci làmb ji ñaari booy yi c'est pas pour rien tey ñu egsi fii ci làmb de Modou Lô li tax mu tey mu dégg roi des arènes lan moo ko waral. parce que dafa nekk ndaanaanu làmb nekk ndaanaan boo xamante ni ndaanaan bu ne daje na ak moom ci làmb tey ji ñi mu ñi mu humilier ci làmb wala ñi mu gañe ci làmb ñu ci bëri tey ji bi mu loo di daje ak ñoom ñoo ñu lañ joxoon favori waaw kooku kooku Balla Gaye numéro 2 rek Balla Gaye numéro 2 rek moo ko fi attaqué bombardier waaw mais mais bu dee attaque bi bi tax nuy wax Balla Gaye moo ko fi agressé te pourtant premier combat am noonu la def daf ko agressé jàpp ko daan ko xëy na mu xam mu xam fi nga xamante ni Modou bu ko bëggee daan sa fa jaar bu ñu leen boolewaatee noonu la ko def may ko mu xalaat. mais est moo nekk point faible non ça dépend rek est-ce que est-ce que Balla Gaye ak Ama Baldé benn lañu ñaari mbër yi nu benn bokkuñu dayoo waaw xam nga en tout cas Modou Lo en tout cas euh, nga baal ma Ama Baldé mi ngeeg mi ngeeg dox boo xam ni wut si adversaire adversaire bu amul fit doo ko fa xaar waaw wax laa la wax nag Ama mu ngeeg dox boo xam ni njàpp boo xam ni bu arbitre sifflé mu njàpp wut wut si la noonu muy def tànk beeg loxo bi boo amul fit doo ko fa xaar waaw waaye loo ci mën a dégg mooy combat bu doy waar a ngi noonu combat boo xamante ni ku ko gañe ku ko gañe non am nga ndam lu doo xam ne dootul fay ba abadan ilal abad histoire da koy bind coow lee bari expert lamb yu si bëri lan moo tax Baye Balla ni amul favori liggéey waaw mooy li ma la wax dama ne la léegi lamb dootul ay rêve ay réalité la da ngay liggéey xam nga li dañuy préparer combat man ak yow dañuy prépare combat dañ laa fay dañ maa fay ma dem nga dugg sa rukk di liggéey ma dugg sama rëq di liggéey comprendre nga donc ki gën a liggéey mbëri doo foofu bu ñu déglee bi ñuy jàkkaar loolu naan la ki gën a liggéey ki dàq bëri yal na la yàlla may ndam mais dëgg la mais xoolal wuy ma eh fii booy yi wuy ma le bien fait n'est jamais perdu dama ne la yàlla du fay wax mukk bàyyi jëf waaw ñi liggéey ba weer dee sa waay bu dañuy dem xam na fi xam nañ fi ñuy dem fu fayeeku ji da ngay fayeeku mais toog ci sa ruq ñu fay ñu fay ñu fay ñu fay móotloo fay la moo du nekk ci ruqam di liggéey every time du jour au lendemain yow nga nekk fee toog sàlla wax ji loolu wóorul le jour du combat day feeñ wala ñu fay Ama Baldé ah yow nga nekk fee ci ruq di wax Ama Baldé nekk ci di liggéey mais day feeñ xam nga li ma la loolu tax man aw ma favori ci combat boobu favori bi dama ne la su ma demee ba koy jox Modou laa koy jox parce que moom moo yor couronne bi. ba pare moom moo dugg moom moo dugg Modou Lo moo dugg Pikine nag daan fi ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène sa tub Samba Xoyaan bi nga xam ne ndaanaan la kenn dàq ko bari ci ci askanu ci làmb. xam nga li ma la Ama balde dugg parcelle. jël fa Papa Sow daan ko donc revanche pikin la ak Parcelles waaw ah, revanche la Pikine revanche bu neex nag bu doy waar waaye xanaa xamoo bés boobu 5 novembre waaye combat boobu yal na am ngeen baal ma de fii ngéwal la lii kenn mësu koo gis ngéwal la waaw baal leen ma de kajang kajang kujung kujung fii rek nga koy déggee. biir kër Baye ko fekk tey. ah ngeen baal ma maa ngi jégalu bu baax a baax combat boobu dama ne la waaw. Modou Lo ak Ama Balde. non man instant bi mënu maa wax ci ñoom ni ma leen gisee non xam nga mbër day sippiku fi mu nekk nii fii dans un mois boo gisaatee Ama balde wala nga gis Modou Lo mën ngaa gis ñoom soppiku bu garaaw moo tax du ma ci wax non non mais ci kàttanu yàlla ak mbaaxam le jour du combat bu ne xerab bi sama waatu maa fil àdd ñoom ñaar bu ñu simmeekoo ba dongal yi boo ñëwee nga mën naa mënoo gisee ñaari mbër yi seen état de physique yi waxuma la kuy daan de seen état de physique yi ma wax lan ma wax la ndaanaan bi ki ci gën a liggéey man maa la ko wax man. mais mais am na ñu naan na non bu fa xajee dina ma jaaxal Ama Baldé rek day duy vingt 22000 places xam nga loolu. Modou Lo rek 1 ba bu nu ko toppee ak la grosse ga muy jógee ak ña ca des mën na 22000 places mën na ko mën na ko indi moo tax dina ma jaaxal trop. combat boobu daal ku ci bëgg ku ci bëgg place ku ci bëgg seetaan combat midi balaa midi na la fekk ci stade bi nga dagg sa biir toog parce que combat boobu gëm naa ne midi stade bi day clôturer 22000 places xam nga du ay caaxaan du ay fo mais Ama Baldé ah yow tamit man wax euh, mhm. a mhm. nga xamante ne moo nekk si waa mais li koy apaiser mooy xam nga lan la mooy làmb june am na fii làmb june am na fi fii làmb june làmb joo xalaat fii muy Léopold Sédar Senghor muy stade Demba Diop arène nationale làmb june am na fii làmb mënuñoo jaaxal mënu mënuñu dépassé booy ci boppam ñoo war a nekk ay nit supporters yi ak yenn accompagnant mbëri amateur du def lii duñu yàq làmb te làmb mooy sunu gagne-pain comprendre nga am nga looy def yow rek dangay ngay yàqal mbër mi nga xamante ni moom nga àndal des fois nga yaakaar ne dangay ngay defaral mbër mi fekk da nga koy yàqal nanu bàyyi ñaari xale yi ñu dund ci tranquillité ñu bàyyi leen ñu entraîner préparer seen combat le 5 ñëw comprendre nga ñu bàyyi leen ñu bëri que le meilleur gagne loolu mooy dëgg xam nga bu ñu ñëwee ci yenn yenn yenn sinon bu fekkee loolu mënul nekk comprendre nga ñoom ñaar mënuñoo daje toog nii jàkkaarloo live and direct face to bu neex sénégalais seetaan ko mais ñu def ko duplex ki nekk pikin ki nekk parcelle match bi tas ñu waxante la ñuy waxante ñu xaarale le 5 novembre ñaari mbëri ñëw ah. pexe du jeex buur mhm. euh, mhm. non loolu mënuma ci wax parce que buur suma freer la comprendre nga xalaatam la wax xam nga te dama te xalaatam xalaatam la ku nekk am nga sa xalaat mooy li ma la wax sànq rek mhm. gaa yëpp ci làng yaa làmb la ñuy yëggu ku ci nekk buñ la seetee sañ ngaa wax sa xalaat ci noo gisee mbër mi comprendre nga te buur waa ñi koy génn ñiy génn di ko dal waa ñoom tamit seen gis-gis la ñi génn moom xalaatam la wax ñi génn di ko dal seen gis-gis la rek mais bu ma sañoon yooyu yëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu gas ba mu xóot ñu suul te bàyyi wax ju baax ji baaxul silence dafa baax silence silence arme la waaw nit dina la tooñ sax wax la loo xamante ne xam nga tey amaa Baldé bi nga xamante ni moom la ko buur wax doo ko dégg mukk xam naa mu génn di tontu buur du ko def comprendre nga xëy na peut-être li mu koy tontoo mooy mu dem liggéey xoolaat li ko buur wax mu jëm cee defarwaat rek man loolu laa gis quoi comprendre nga mais xalaatam la wax mais mooy li ma la wax man du ma ne mbër mi man du ma ne mbër mii moo ëpp doole. fekk bisu combat bi ñoom ñaar si meekuñu le jour du combat laa la wax de mbër day soppi ku booy deux semaines mbër mën na cee liggéey lu doy waar nga li ma la wax waaw moo tax duma ci gaaw a wax en tout cas buur suma frère la xam nga man yooyu moom wax dëgg yàlla du ma ci wax xalaatam la wax xalaatam la amul benn problème maa ngi koy bu baax a baax buur ah? mel nan waa loolu xam nga mooy li ma la wax rek àdduna moom loolu yàgg na ci bamba sa gis-gis ak sama gis-gis du benn bés bu yàlla sàkk nit wax ñu ne kii lu tax mu wax lii comprendre nga waaw li tax mu wax loolu gis-gisam la wax waaye yow li tax nga wax li nga wax yow sa gis-gis la comprendre nga ku ci nekk la mu wax en tout cas ku ci nekk yow loo wax loo mën a wax rek na nga jël responsabilité bi comprendre nga xam ni kat lii man maa ko waxoon. bu dee dangaa wax juum parce que nit ku dul juum amul ci àddina nga génn xamal ne ni damaa juum comprendre nga bu dee leer na la ni lii nga wax bu doon da ko war a waxaat da ngay tax waxaat ko nga jël sa ay responsabilité doomu aadama noonu lay mel quoi vraiment mais wax ju ñaaw moom yàlla nañ ci yàlla muccal ak te muccal nu ci accident làmmiñ parce que nit moomul boppam yàlla mi nga xamante ni mooy do mooy mooy mooy borom jaam ñi yàlla nañu yàlla dollee taxaw te muccal nu ci accident làmmiñ waaw te yàlla defal leen jàmm yéen tamit xam nga ah tey kontaan naa trop ci bi ngeen teew fii ci sama biir kër ah kontaan naa trop ci seet si bi ngeen ma seet si ndax ñun ñëpp on est de la même famille ñu ngi ñaan jàmm di ñaanal alburaax di ñaanal Luc Nicolaï di ñaanal ñaari champion yi Modou Lo ak Ama yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen wér ba nga xamante ni le novembre dinañ ñëw bégal sénégalais yi combat bi combat àdduna bi la ay waay ngir yàlla wóor suuli sauver leen bés bi combat bi combat adduna bi la ñaari mbëri duñ ko yàq de ñi ko tëgg nag def ci seeni million bu nu sañoon bis bi dafay am comprendre nga kon supporters yi ak accompagnant mbër yi mais yow wuy ma xadee leen xalaat dimbali leen champion yi dimbali leen réew mi ndax combat boobu dafa war a am sénégalais dañ ko soxla surtout les sénégalais de la diaspora comprendre nga kon nan nu dimbali rek jàppale ñu ñu waxtaan xam nga suñu biir jéem a xool nu ñu trouver un ah jéem a xool combat boobu naka la ñuy defee duplex ñaari mbër yi ñoom ñaar ñu waxante te mu nekk sax dernière face to bu nu neexee Ama Baldé ak Modou Lo ñu waxtaan ñu def duplex waxtaan ku ci nekk wax naka ngay préparer le 5 novembre léegi nag le jour komba combat ma ñëw nag ñu ñaar ñëpp ñu ñëw nag ku ci ne wane nag li nga mën sa moroom parce que ñoom ñaar moom bu arbitre bi génnee seen diggante lu garaaw laa lay wax lu garaaw laa lay wax bu arbitre génnee seen diggante non nga gis lu doy waar. trois points de suspension kaa toj na réew mi ku ci ne bëgg weer sa morom te yàlla sunu borom moo bëri sutura. yàlla sunu borom sutura gi nga xamante ni moom la bari moo tax mu sàkk guddi. sàkk bëccëg ngir suturaal doomu aadama léegi nag ku ci nekk ci ñun ci sunu biir yaa ngi bëgg a weer sa moroomu doomu aadama te kaay wax la benn affaire képp ku fi weer sa mbokku jullit wala nga weer doomu aadama ni yow barke Serigne Bamba balaa ngaa faatu yàlla dana la weer. nanu bëggante nanu jàppante nanu wóolante nanu fonkante te yàlla rek tax wax waxdahu xaalisan ngir jëmm yàlla kase mu tedd mi kaay ma wax la benn affaire de la baa Bàmba ne woon kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def sa bopp nga ko def billaahi wallaahi ak a wér ak a leer ak a wóor man dama dama gëm maanaam dama gëm nit koo xamante ni lépp loo yéene sa bopp ci lu baax nga yéene ko sa sa mbokkum jullit parce que nit kuy dund ci kaw suuf sa xolay sa mbedd de te saa boo xëyee di nga ci jaar boo yéene ñëpp jàmm barke Sëñ Bamba kenn du la ko ëppale da nga koy am comprendre nga wax bu ñaaw wax bu bon tuumaal doomu aadama ñii tuumaal nañ leen ba leen ñii ñu tuumaal leen sànq leen lii dara jar ko ci àddina mais booy le jugement dernière danam la mais nag kaay wax la benn affaire ku wéet barke Serigne Bamba xam li nga def waaye nag saa boo wéetee ba xam li nga def xamal ni le temps c'est le meilleur juge day yàgg rek waaye bu dee lu baax la day ñëw ci yow bu dee safaan bu dellu si ci yow ndax goes around comes around comes around macha allah <laughs>